ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عكيم ونجنا من سر هذا سمني وسر خيره وكل فتن والتقنا سر النزارى والنور وسر إبليس وكل سجود والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان وسرما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح وافقنا لصواب وسلام mais gisoo ko di koy ci ci wolof ko korite kon ñu ngi ci nuyoo bi ñu jiital Cheikh Mamadou Mountakha teg ca Cheikh Abou Baraka mi nga xam ne mooy kilifa barab barab bi wala wala wàll bi ci Tuubaa ñu ngi di siyaare di leen ndokkeel ci bis bi ñaan di leen ñaan yàlla yàgg fi ca wér ba lépp lu naan lislaam ak yoonu murit ñu ànd ko ñoom ñu def ko si seen def ko ni ko bëggee ñu ànd ko ñoom te ñu fekk dee ñu ñëpp yàlla. dugal loolu dugal loolu maa maa jégalu ñëpp man maa maa ñëpp ñaan ñëpp jégal ma mais maa ngi jégal te ñaan yàlla jégal ñu ñëpp suñu bàkkaar yu yëg ak yu yëgul gannaaw loolu nag wax bis bi nga xam ne rek bis mbégte la bi ci gannaaw bu ñu wooree daf leen digal yàlla ba noppi yàlla digal ñu bis ak ak ak àq dafa tellu dafa tellu baax tam la ko suñu njaboot yëpp ñu ñaan yàlla nagul ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko diglee ñu bañ am benn raq raq bu bu koy ñaawal ci ci ñaan yàlla fi ñu fekk déwén bari ci kanam te déwén nag bañ nekk mel ne ren ji ci xew-xew yu xew jamono yi xam ci lañ toll nii kon loolu ci xew-xew bi ci lañ daan tabbi rek euh, sax na ci xëy na sax def na ci waxtaan ci ci ci weer ci weer koor bi ak yi la mu jiitu boobu léegi tookaa la ñu ngi ci def ay ak bayaan yi ñu la laayal laayante biir tam ñëpp ñu ngi koy def kon la ci tënk rek ci fàttali moo di xew-xew bu mel nii ab jullit li ñu ñu ci war a taxawoo loolu te wax waxtaan nañ ko ci jàkk yi def nañ ko ci wolof ak ci arab ku ku ku yittewoo rek man man su jokkoo ñu ngi koy jàngati ba jël cee taxawaay nañ cee fegoo ba aaru ci ba wala mu ci mu ci ca wala wala ku ca kum dal ni ngi def ba ba nga génn ci yëpp ñu war a sàmmante moom ñoom yëpp ñaar yooyu bu ñu seetloo nag daf mel ni xeexoo bi mel ne ni wopp ji ñu ñu ko tuddee daal daana xew ci jamono jamono yàgg ya tax dégg naa ci ci ci benn borom xam-xam boo xam ne ne moom bu doon dund gépp ci la ci faj la ko def ak ci gëstu li ñuy faj ci may jàngoro yu mel nii waaw juróom fukki xar na xar na waaw moom daal feeñe na ci ci ci ci àdduna kon lu bees ci àdduna kon moom moo war a tax euh, fajkat yi ñu ñu ci wax rek moo tax topp wax bi seen wax ci kenn nag la lañuy lislaam digal ñu topp ko ci ñoom ñu bàyyi juyee lislaam ci seen ci benn fànn loolu bokk na ci li ma ci li ma ci dégg li ma ci xew-xew bi dafa mel nag eh, waaw lu benn la ci xew-xew bi nag moom dafa dafa jéggi dayoo ndax dafa laal ci wàllu fànn yëpp ndax dafa da mel dafa mel daal su su fekkantaan xew tamit lim fi mu yegg ci ci ci ci ci taar ak yu metti mu soo yegg moo waral sax taxawaay mbooloo yi yëpp seen taxawaay bi demee nii mooy mooy mooy bu tax da mooy tax boobu mu war ñoo tay yi ci xeex comme jóge ci musul ci ñaan yàlla mu bañ a dal dal ñëpp ñu yàlla mu wér leen di jóg ci ñu am seen jàmm yëpp yàlla yàlla moo tàmbale ko ci ci dëkk bi senegal ak Sénégal yëpp ak ci réew jullit yi ak ci réew yëfër yi ñaan yàlla daal mu takkal ko te bañ bañ bañte am ñaareel taxawee seetlu bi ñu ci def moo di nit nit ñi ci ci lañ xamante yi mel ni mel ni xeexu yu mel nii ci lañ xamante xam ci xamee nit ñi ndax nit ñi ay xel lañ seen bokkuñu ay mar ay darajaat ak ay martaba ak it seen i xel tulluwuñu man sama jàngat gis naa ne daal xew-xew yu mel nii su amee ci lañ xamee ñëpp ci lañ xamee nit ñi ku nekk daal da nga xam su kon loolu kon kon kon dafa mel tamit euh, xeexoo bi tamit euh, na daal ab am la euh, ci nit ñi waaye rek ab ab yar la yoon la ci ca wàll ab yar la di di di di xibaar yi moo di ak ak ak nat nattu la ci nattu ñu naan waaw mooy nattu mooy loolu rek nattu loo xam ne da xool fu kéem toll xam-xam fu toll ak man-manam ak ay pexeem yëpp jàng ko ci ci ci xeexoo bi loolu ci ci fànn nag. ñetteelu taw set bi mu ci def moo di nit ñi fu fu ñu toll dañuy yittewoo ku ñu leen xettali xettali boobu nag ci saar ak ci bàttali doon rawatina nag bi xew-xew bi amee moom daal la seen euh, yittewoo xettali ko dafa dafa dafa gën a dañ ko gën a ayoo xettali boobu ci ci ci wàllu saayir di kii euh, xettali ku leen ku leen dundal. wala ku leen waddal ku leen dëkkal yëpp ci am ñu bari ñu ko ajowoo ndax gis nañ ni ci bari seen liggéey ci dañ koy taxawal ci ci ci xew-xew bi bi mu ñëwee rawatina nag xetli ruux mooy dundal ruux te ko kooku sama di am solo kooku nit ki su yàlla dimbalee ba ba mu am ba mu euh, fu mu toll rek di ko di ko yittewoo yàlla yàlla di ko ci di ko ci baax na mu na mu ko bëggee loolu ñaareel su ñëwee sax moom du du métti ci moom ni méttee ci xam nañu bokk ci ñaan ak ak jaamu yàlla ji moom moo jiitu na mooy topp ndigal bàyyi tere yi loolu mooy mooy mooy mooy buntu képp kuy xam day wut xeetli ko ci suñu borom subhanahu wa taala ndax xam nañ ni kenn du sakk lu baax di nekk ci sawaan ba kon yooyu ñetti ñetti eh, taxaw seetlu daal defoon naa ko ci xeexoo bi loolu nag eh, ci bokk na ci ñi koy sabab ndax yàlla lu mu defee ñaare dañ ñi loxo doomu loxo saw saw doomu aadama ma ngi ni ma ko seetloo sababu sababu sababu yooyu nga xam ne doomu aadama moom bokk na ci nga xam ne moo moo sababu lii mel ni xew moo di sàggan ak ñëpp jullit ñi seen tàggante moo di ñàkk taxaw. taxawee ndigal yi ñàkk a wattandiku tere yi bokk na ci ci ma gis-gis li xeexoo bi li li ko li ko li tax mu am ni ndax buñ seetloo at yi wees yëpp ko ci fukki at ci kanam ba ba ba jamono yi jamono yi tam ne tam di soppi ko xëy na fi mu yeggee moom dafay yëgu foon ci ci mbatti ci taal ak ci mbetteel loolu mooy suñu wàll ñun ñun jullit ñi. kon boog ñu mën gën cee mën a euh, taw seetlu seetaat seetaat suñu suñu suñu euh, suñuy diggante suñu borom ak diggante ak suñu nit ak suñu moroom ci jëflante yi ñu mën ko rafetal te fonk jaamu yàlla yi bu dee yëfar yi moom ñi xam ne du ay jullit xam ne ñoom ñoom gis xam gis nañ ni seenu sàggante ñoom fi ci sàggante sàggante dëkk ci def lu yàlla di gërëmul waaye dafa mel ni at yi at yi nekk nii seen poox dafa dafa dafa tar dafa gën a yokk seen jublu ci polaal ba sax di jubbaale yenn julli yu sàggan yi daal ci gàttal ci sama seetlu bari na ci saba yi nga moo waral bokk na ci li waral daal li xew jamono yii loolu nag li ci ci ci sama gis-gis liñ ci musal moo di rek ci xew-xew yu mel nii ak yi dama ne moom moo di moo di rek ñu ko waxee sànq rek moom euh, seetal seetluwaay doxin bi set set rafetal boobu daal yeesal dox doxin doxin li ñuy te loolu lu ñuy jiitale moo di fonk gën a fonkaat yar yar yar yar yar tout tànk yi di leen jàngal ngir ñu am ak ak boole ci di am ay teggin ngir ñi mën a teg ci yoonu jub ci mu yoonu siraatal mustaqim ndax gis nañ ni euh, xeexoo bi bi mu amee ba léegi ñi ci ñi ci ñi ci ñi nga xam daal lu métti ci ñoom lool mooy ñu yàlla joxoon ay yar ak teggin lu néew néew ñooñu sama gis-gis ñooñu xeexoo bi du métti ci ñoom ndax ñoom dañ tegu ci yoon xam nañ bu leen digalee dañ ko def bu leen teree dañ ko bàyyi te it yàlla dimbali leen ñu ñu ñu ñoo ko ñoo xam ne dañoo noosu te ñooñu te loolu ak nit nit rek loolu la mel nit nit nit ku nite loolu ay jikkoom la rawatina nag ab julit rawatina nag taalib bi sëñ Tuubaa dëkk ci wàll gi ñu gis ni sëñ bi ñu taxawee ci ci ci xew-xew bi ànd ànd ci ni rek docteur yi lu ñu digle mu def ko taxaw ñu ñu lay dimbale kon nag képp ku xam ne da ngay tuddee jullit jullit rek waxuma rawatina murit war ngaa roy kii suñ sëñ bu baax bi xam moom lépp lu xew rek yàlla dimbali ko mu am am na mu ci doxale loo xam ne ñëpp a koy gërëm kon ñu ngi ñaan yàlla ñu roy ci moom ba ko xam rek bu buy dem ñu bàyyi ndax nee na moom dem bu dem ku dem bu ñu ñu ñaan rek bu fee bàyyi. Hmm. kon ñu ñu yow yow waxtaan bi rek. ndax wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh